alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu génnee àddina sama bàjjen ma ne na bésu àllarba ñoom ñu nga ca tool baay ca Mérina da bay bañ bayee ba ci kanam ñu gis benn waay bu ñëw ci baay génnee leetar jox baay baay liir ba pare ne ko ah mu ne waa mu dem ba bàyyi di waxtaan ñaanal leen bal balam leen di xewi la leen wax ne seen mbokk mi nga xam ne haatifu rabbaani moo ko daan waxal mu leen di nettalil tàggu ne leen Ibrahima Diouf dem na xëy bu génn àddina fekk nag suma bàjje mu ne waxoon na ko ne bés woor gi ngeen gis suuf su wow si du dañ suma feek su ma nobbi kerejut feek duma ci suuf dee ñu suul ma rek du dañ keroog nag yàlla ji dafa taw tawa taw ñaari fan mu ngee taw àllarba dafa taw alxamis dafa taw waaw li ma ciy dolli ci leeralit tëgg kusaasaa fa lañ ko rob waaye nekku fa de mu ngi kuusi waaw loolu na leer loolu danaa ko leeral tëgg kusaasaa fa lañ ko rob foofu lañ ko mujjee gisee waaye nekkut fa mu nga kosi ndax dafa woyoon ne bu ma fàddoon nañ ma rob kosi foofaay Bandiagara maanaam Kossy mooy Bandiagara Cheikh Omar Fouti ba mu duggee ca doju Bandiagara wa lañ ko gëj a moo tax mu ne moom it bu fàddoo nañ ko yor rob Kossy foofaay Bandiagara ñu ne ah mu fa Cheikh Foutanke ba bon li la wéy wi xamal mooy Cheikh Omar ci boppam sax newut Bandiagara mu ngi Kossy ne moom bu dee nañ ko yóbbu Kossy bu ma fàddoon nañ ma rob Kossy foofaay Bandiagara fa Cheikh Omar Foutanke ba léegi nag mu génn àddina ñu rob ko tëgg ku saasaa xaali fay taalibeem moo ma wax ne keroog alxames ñi ñëwoon de jaale si bañ ñëwee dem ca xabru ba dañoo ñëw fekk xarmel bi bees teg bant yi ñu ngi ko teg ci biti defa xarmel buñ defa gudd benn nit lañ fa fekk ñu ne ah yéen fu ngeen defoon ibu ñu ne fii lañ ko defoon de ñu ne a ah, fii dara newu fi ñu jëlaat bant yi teg suulaat lii xaali fay moo ko bon Ibou Diouf mu nga koosi gam waxoon na nañ ko fa rob na dem ah lii tamit na leer waaye nag ñun buñ koy siyaare dañuy dem tëgg ku saa saa fa lañ ko mujj a gisee foofu lañ mujj a tàggoo ak moom ñu siyaare place ba waaw ñu siyaare ba fi mu ne mu ngi koosi waaye fu mu fu tëdd ci biir koosi ku ko xam comme maa ngi rafal newu fi moom rekk ko xam xam nga aha bon lii laa noon danaa ko ci leeral waaw xam nga eh, maa ngi tolloon ci moom ci tëgg ku saasa ah eh, tëgg ku saasa googu maa ngi dégg gars yi woykat yi di ko woy niñ koy woyee du noonu de eh, tëgg ku saasa xaali fay woyut ko Ibou Diouf woyut ko xaali fay moo ko woy xaali fay la sëriñam dee mu koy marsiya mu koy jaale cele ne tëgg ku saa saa samandaay na laskandariya parce que laskandariya fa lañ fa lañ suul bu sayri yi mi doon tagg yónnent bi mu ne xaale nag mu ne bu sayri yi mooy Ibu Juuf bàyyi mooy yónti yàlla nag ki doon woy yónnent bi ñu ngi ko suul euh, laskandariya ki doon woy bàyyi ñu ngi ko suul tëgg ku saa saa moo tax mu ne tëgg ku saa saa samandaay na laskandëri ya falañ garde suñ bu say réew bi ibnu sàmba siini mu ne ibu jufa sopp sopp yónneen loolu alifa ko woy tëgg ku saa saa samandaay na ma laskandëri de falañ garde ibnu sàmba sidi bara mane falen gardi suru bu sihru ibnu samba jufu ibu jufa topp yonen sidi bara mane dongoy barhama nyas Way kat balen di denk ay baata munkuti bi ci biir kaddu sidi bar ma da leen refen njorta seen xaatir yi ci yalla tangen mandu kon ngeen dagu pi malakot sidi bar amuna njaw caam bismillahi tagunala la fi sawalu sa junne qul wala hudayna sidi bar amana bokki siwal bokki kantora taggu ku saasa mangi para delu khaybu sidi bar amuna ñana len ma kero suma del siate nek de jama bàyyi warlu len ma lolo gañi sidi bar amana suma fàddoon nañ morab ku saasa foofay banjagara fa seeqo omar fuuteen keba Sidi Barahama La ilaha illallah La ilaha illallah Wa kulli tibi Ngeen ngeen yéen anda ànd ak gaay yéenay liggéey bay Sidi Barahama Wa si TV am jara. liggéey fay du baay leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV